travail parce que bi mu nekkee ak président Macky Sall loyauté ak son sens de travail liggéey rek la gëmoon gëmul leneen ak loyauté kon donc nit la koo xam ne kii boo gisee sax ci biir bi mu génn addina bi nga war a xam ne kooku du ku nekk nekkul à la n'importe ku nekk kon vraiment ñu ngi koy jaale ay mbokkam di ko jaale président Macky Sall mi nga xam ne moom frère la def président Macky Sall am na un jour may waxtaan ak moom mu ne ma kii président de la république mu ma grand kii président de la république donc ay waxam waaw la tudd yooyu ba tax na donc vraiment loolu la servir ba li muy tàggoog président kon yéen it ñu leen di sant leen gërëm. jërëjëf jërëjëf dañ leen di jaajëfal baax a baax euh, mu ngi noonu kon mu ngi noonu kon euh, l'ancien premier ministre Mohamed euh, Boun Abdallah Dionne ginnaaw cérémonie levée du corps bi mu ngi nii kon ñu dugal ci ambulance bi ñu koy euh, fas yéene yóbbu kon euh, ca tëdd dëkk gu tedd ga di Touba fas yéene ko jébbal boromam foofee kon na tey ci bésu korite gi waaye nag euh, korite gi dafa mel ni teewul teewul benn yoon nit ñi parce que li fi teew ci ay nit bëri na macha allah donc li fi teew ci ay nit bëri na Euh, ay kilifa yu jóge fi ne ay kilifa diine waaye it euh, ay euh, kilifa àdduna ñu ñëw teew ci bés bi nga xam ne ni bés bu tiis la ci réew mi bés mu tiis la ci senegal donc mu doon aussi li nga xam ne aussi tamit naqar la ci réew mi parce que tamit euh, ki fi jógee moo doy noonu je le rappelle il a eu à occuper de hautes fonction dans le pays donc euh, rappelé wu nañu bu baax déglu nañu témoignage yi nga xam na ni euh, frère am di Cheikh Dione wax na ko fii mais aussi déglu nañu le premier ministre Ousmane Sonko mi nga xam ne ni le président Bassirou Diomaye Faye moo ko fi yebal ngir mu ñëw ngir mu ñëw teewal Gracias. kon euh, ambulance baa ngi noonu di dem jëm kon ca dëkk gu tedd ga di Touba foofe euh, ma fay fekk kër gu mu jëm tey ci bés bi nga xam ne ni bés bu tedd la ma war a jëm ca dëkk bu tedd kon ca Touba donc euh, mu ngi noonu toujours euh, kon. Très euh, vite. Euh, très doué gros travailleur nag gros gros travailleur ah, donc euh, loolu mën nañ ko seede ci moom gros travailleur et voilà donc euh, nous on a partagé trop de choses ensemble su ma ci waroon a wax xanaa damay gàmm rek ah, donc loolu laa ci mën a wax di ko ñaanal yàlla donc soxnaam Kati Sarr évidemment xam nañ xamante nañ bu baax ku fonkoon jabaram la ku weegoon jabaram la tamit vraiment bëgg famille yam très famille vraiment depuis ñoom du Thiam xam nga Dout Thiam nijaayam la il président du conseil économique et social moom moo créé diplomatie sénégalaise donc ñoom ñoom Dout Thiam ñoom ñoo leen formé ak baayam baayam commissaire John grand éducateur vraiment man lu bare moom moom ma ko jàngal moom ci boppam moo tax aw ma seen pay aw ma seen pay vraiment loolu laa loolu laa ci mën a wax. Euh, waaw ah, jaboot ji lu ñu waroo xam nañ ko ñu ñoom ñëpp dañ leen yar ci diine xam nañ ko ah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun le commissaire John loolu la ñu jàngal ñu ñëpp ah, muñ rek ak ñaanal ko waaw ñaanal ko jaboot gi ñaanal ko loolu laal moom mooy moom mooy wax ji muñ ak ñaanal ko roy tamit ci ay jikkoom yu baax loolu laal njaboot yi daal loolu la leen ñaax muy doomu sërëm yéeg doomu cheikh ak yëpp ñoom ñëpp ah, c'est ça qu'il faut leur dire que macha allah leur, papa leur oncle a été un, grand homme macha allah loolu laa laa ci mën a wax jërëjëf c'est donc euh, mu nekkoon noonu Mamadou Lamine euh, Diallo. ay kaay ñu jëli sëriñ bi wala Pala Mbaye asalaamaaleykum président asalaamaaleykum. ah sëñ la ah, yan kàddu nga ñu jël ko fële xaaral kee pare ñu boole lépp quoi. bi ñëw fii bu pare ñu boole lépp. ñëw bu pare ñu boole lépp quoi. boo waxaat léegi. non kii daraay gi dëkk la boo xam dañu am ay valeur kon valeur yooyu ñu ngi ñaan ñëpp nag ñu tënku ci valeur yooyu bu ko defee ñu ñaanal nag. njiitu réew mi comme ni ma ko waxee léegi réew mi noo ko bokk te lii nit ñi bokk fokk kenn ku ne la nga ca war a taxaw da nga cay taxaw ku ne la nga war a jàpp nga ci war a jàpp maa ngi seen léegi mon ami mon frère fierté sëriñ Mboup maa ngi koy seen muy sama xarit muy koo xam ne ku man naw la damay wax naa Serigne bu baayam juddu woon tey bu baayam dellu si waatoon tey Serigne du defar toogaayam loolu maa ngi koy wax maa ngi seen Serigne kon li ma nawee Serigne dama ko naw ngir loolu c'est un bon citoyen mais c'est un boo xam ne dafa joué paaram ci réew mi sama xarit la nag maa ngi koy wax moom nee na xaritam laa man nee naa xarit sama xarit la te loolu mooy dëgg moom mu ngi koy jëmal maa ngi koy jëmal dañu nawloon te kon yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla suturaal moom it ku doon laaj réew mi la waaye yàlla joxo ko ko waaye dañu koy ñaanal nag mu ñëw jàppaat ci réew mi ñu ñëpp ñu bokk a jàpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu kontaan gërëm ñëpp sant ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah yàlla yàlla nangu ñaan euh, président maa ngi lay nuyu ah, taxawal bul sori bul dem dama bëgg seq li ngeen seq ma ah. maa ngi maa ngi di siyaare di di jaale euh, Mohamed Boun Abdallah Dionne hmm. xam nga ñoo bokk Serigne Touba d'abord bokk Sine Saalum ndax waa Gosaas la mais man dafa nekk sama xarit particulier eh, boo xam ne ni bi may doog di commencé di def commerce boobu mi ngi nekk directeur de l'industrie ci Maguette Diouf moom ma njëkk a woo teg ma ci woon eh, soo xoolee attestation industrielle boobu tax baaralee taxaw moom moo moo ko defar moom moo ñu ko puus defar ñu ko et depuis lors ñu ànd ak ñun ci liggéey te wax dëgg yàlla nit ku ubbi ko la ku baax la nit ku ñeme dëgg la nit ku mën a dimbale nit ñi daal jëf ji doon jëf ci àdduna nag yàlla na ko fekk yomal xeer. d'accord nga bokkoon ci ñuy laaj réew mi ngir jàpp nga ni doxalin li fi nekk nekkul bu dëppoog bi nga bëgg nga doon laaj pour soppi ko suñu borom dogal li muy dogal tey bi résultat yi wàccee en tant que président Serigne nan nga jàngatee mbir mi. waaw yàlla bég ci kontaan ci ndax doomu aadama moom day nangu dogalu yàlla nag ñun ñëpp dañoo bëggoon mbir mi soppiku soppiku na li ki des rek mooy ñi ñu ko dénk pour ñu soppi ko ñoo ñu soppi ko rek te incha allah yaakaar naa ko soppi. d' ñu gis ne euh, premier tour yi jeex ndax amoon nga njort ne premier tour lay fi di xam nga njort moom njort ku ne ku ne amoon nga njort sax ne yaay gagné. waaw waaye euh, njort moom njort rek la. li ci des mooy li yàlla dogal rek finalité bi ndax loolu lu passé la li ki des moom mooy fexe jiit fexe réew mi ñu jéem a jublu ci liggéey bi nga xam ne nii mooy liggéeyu fexe ba nit ñi jàpp ci dara. Euh, nit ñi bu ñu jàppee ci dara rek xuloo bi ak xeexaay bi ak noonante bi day dañ daal ndax la gën a métti ci àdduna démocratie baax na lépp baax na waaye nit ñi tànk ñi ngi xiif walla ñi ngi eh, am luñ soxla amuñ ko te wala ñi ngi leen di xañ seen i rek day yàq lu bare ndax pare nga tey pour fekk si président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour ànd ak ci liggéey bi pour ñu xam ne intérêt Sénégal ngeen di ngeen di sàmm. waaw naka jekk ñun dañoo ànd liggéey ah ñun xam nga ne. mosuñu nekk ci opposition mais mosuñu nekk ci kii suñuy wóllëre lañ yàgg nañoo liggéey yàgg nañoo def ndax euh, li koy firndeel rek daaw bi may def fête yi may def ci CCBM moom Ousmane Sonko dafa ñëwoon Mouhamed Boun Abdallah Dionne ñëw fa kon loolu mooy wane ni ñun du ñuy ay acteur économique euh, du ñuy ay acteur euh, politique mais bu ñuy def une partie ci politique sax du politique boo xam ne dañ cee xeex ak ko xuloo amul benn njëriñ li des moom mooy réew mi jàppale ko ànd ak moom liggéey ndax mënoo yor maire dëkk mel na Kaolack yor chambre de commerce ba pare te tu es obligé à travailler avec l'État. bon message boo koy wax moom président la lay doon. waaw xanaa ñaanal ki fi jóge rek ko àjjana. président boo ko dama ne président bon message boo koy wax ndax xel du doy lan lay doon lan lay doon. waaw ndegam bis bi bisu dëj la. ñaan rek bàyyi rek ñu ñaan rek ñaanal ko yàlla yàlla. mot li ko liggéeyam message bi ñu ko war a jox sénégalais yi jox nañ ko moom dégg na ko wax na ko ci discours am dégg na message bi alhamdulilah tey li mu nekk ci bis bisu kii rek moo tax waaye bu doon yoon amin yàlla na ngeen am jàmm yéen